fii ci esplanade mairie bu Grand Yoff la ay mag ak ay ndaw daje ngir wax kii di président de la république doy na ginnaaw bi mu wootee ab dialogue te bañ a annoncé datu élection présidentielle yi. si loolu ñoo ngi xamle ni dinañ amal ay action si fan yi ñu jëm. incha bëgg nañ marqué le jour quand parce que suba normalement la ñu waroon woote loolu moom mooy calendrier normal bi. bëgg nañ symboliquement ñu dem wan Sénégalais yi ne bis bi la ñu waroon wate ñu xeñ ñu ko loolu moom ñu ngi ciy woo ñëpp ñu jëmmal ko. mu jàpp datu élection si li mu mën a gaawee si loolu la waa aar suñu élection di woo Macky Sall aar suñu élection di fàttali rek askan wi seen xel yi dafa jaxasoo. li ko waral mooy date élection bii président de la république bañ a annoncé ba tey. gannaaw loolu mardi talaata incha allah rabbi bëgg nañ dem ci benn journée ville morte ñu xëy ñun ñëpp banque suñuy loxo. wan ko ne ko kat d'accord tuñ ak yow ci li ngay def te loo gis nag dafa am fu muy tàmbale waaye dafa am fu muy yem. ay citoyens teew fa ngir wane seeni naqar ginnaaw bi président annoncé dialogue national bi. ñu ngi bëgg a yàgg ci même combat les mêmes choses yuy répété chaque dix ans ñu war a taxaw di di di folli di xeex pour mu dem loolu nag vraiment bëgg nañu mu jeex mu dakk fi dañoo bëgg état de droit démocratie sax fi ba faw si lu jëm si amal processus électoral bi balaa la 2 avril waa aar suñu élection di xam ne bu buñ ko deful dina am ay conséquences